FM euh, juróom-ñeenti waxtu moo jot ñu indi leen xibaar yi. ci mbirum Aïssata la salle. jamono ñu jot nañ ko investir muy candidat mouvement Oser l'avenir moo jël décision bu mel noonu moom nag jot na sax joxe caution ca caisse de dépôt et de consignation non lay nar a demee sax ca euh, talaata bi di dina fa dem ca conseil constitutionnel ngir euh, egg fa candidature am dinañ ci ñëwaat jamono ji waa PUR euh, uni parti unité du rassemblement ñoo def investiture Fofu ca allée de centenaire ngir rek fexe tab di Cheikh Issa Sall mu nekk. Euh, seen candidat seentu nañ fa nag njiitu Moustarchidine ni euh, Serigne Moustapha si euh, beneen investiture mooy bu Mamadou Diop Decroix jamono ji moo nga ca place de souvenir mu nekk ca ànd jëf PDS dinañ ci dellusiwaat Seydou Gueye yor kaddu APR mooy parti bi nga xam ne moo nekk ci nguur gi moo nga dajeek taskatu xibaar yi jamono ji wax ci mbirum brèche bu Saint-Louis dinañ fexe rek dragage bi ak balisage bi ñu tàmbale ko ci weeru janvier janvier bi di ñëw ki wax loolu mooy ministre bi yor mbirum nap waaye euh, mool yi nekk foofu nag ñoo ngay ci am yaakaar bu baax a baax ndax euh, diggante 2003 euh, ba léegi lu tollu ci ñetti téeméeru mool ak juróom ñaar fukk ak juróom ñent ñoo ñàkk seen bakkan ñu déglu kii di Baye Diallo moo jiite comité local pêche artisanale foofu ca Saint-Louis jokkoog Youssouf Bodian. nappkat yi nga xamante ni bi moom la ñu doon bi ñu dégg seen mu mujj ak façon bi ñu defee CRD bi yooyu yëpp infrastructure ñu gis ni kon état bi def na ay déclaration mais ñëw na aussi pour def ay pàcc yoo xamante ni vraiment bu ko tegee du ñu ni accident dana fi jeex à cent pour cent de mais dana dañ carrément ba nga xamante ni bi kenn doot ko ak parce que bu ñu amee fu ñuy mën di jaar ak di dem dellu yaakaar naa ni loolu moom mooy élément fondamental bi nga xamante ni mooy ñu doon gën a poser problème parce que bël bi dafa amoon suuf te suuf soosu surtout pas bi ñu ubbee bël bi 2003 ba léegi ñaata napp kat ñoo ñàkk euh, seen bakkan ginnaaw accident si bërëb boobule. Euh, bon ba ci démb ci décembre 2018 bi ñu tenir suñu CRD ñoo ngi taxawoon ci ñetti téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak ñeent nit yoo xamante ni faatu nañ ci bël boo xaymaa nag ci wàllu alal bi nga xamante ni bi ñàkk nañ ko fa presque dafay ëpp dégg nga maam lu dem ci ay fanweeri millions parce que yow xam nga mbaal tourné ak li muy jar ak mbaal maam bidon yaag machine yaag yooyu fele fele aussi ñëw di day noonu gaalu itam day noonu bon nga gis ni kon perte nañ ci xaalis bi bi du jeex parce que depuis 2003 la ba léegi depuis 2003 jusqu'à nos jours bis boo yeewoo mu nekk de alerte mu ñàkk nekk alerte problème bi daal mooy problème mu embouchure bi bël bi foog ñu gas ko foog ñu daaje donc démb bi ñu bi ñu dajee ñu ñëpp ak ni ñu ni ñu ni ñu taxawalee CRD bi ñu wax ci tawat yaram nag ci mbirum euh, bis choc football euh, suñu gaynde yi am ndam ci kaw Nigéria euh, ñaari bal la am wa Nigéria am benn ci tiro bi la woon jërë ngeen jëf bu 8 heures ci guddi jotee kii di Mamadou Amar Ndione wala sax dinaa fi dellusiwaat jox leen yeneen xibaar jërë ngeen jëf ci déglu bi kon ras naroon moom fi wutu ngir seen émission bi.